Cheikh Abdullahi waaye di ziar bu baax itam jabootu sunu mam borom sar gem di jël nuyo be ziar bi rek di tek ci suñu mbokk suñu soppe serigne mam mo li nga xamni mom lañu la ngir jëkënde waxtu wi rek <clears throat> xam ngeen ne murid lu reey la lu am solo la lu mat a la itam lu ami njariñ la itam kon def tey di ko jëme ëllëg lépp lu mu war a def rek waxtu wa mu ko war a defe foofee la koy defe du ko xaare ëllëg ndax ëllëg it dafa xam yeneen mbiri boppam am na itam ndigal yoo xam ne dafa daa digal murid yi moom Sëñ Tuubaa nga xam ne ku ma saa ñëw ci moom daan na ko digal loolu it baax na ñu xam ko loola la ca jiitu mooy jàng Sëñ Tuubaa ku masaa ñëw ci moom la muy jëkk yow mooy jàng loolu xam-xam alayka yaa muridu bi taallumi fa innahu mutahhirun min dulami wax na ci lu bare bare bare la ca topp mooy jaamu yàlla daana digle itam ne na ngeen farlu ci jaamu yàlla yi di jëfee ndigali suñu borom yi di bàyyi ay tereem yaa ayyuha nnaasu ubudu rabbakum bima bihi xayrul wara jaakum wala takun muntawida sharia wax nañ ci lu bare bare loo xam ne mënoon nañ ci indi lu bare bare bokk na ci yim daa digle lu bari itam mooy jàng alquran jàngal xuraan moom daa mel ne mënta ñàkk di ci dundug murid gi kullu muridin bi yaluusu fal yu dim xam wax na ne kullu muridin bi yaluusu yasaadu mooy wax na kullu muridin bi yaluusu fal yu dim ci laa daawatan mooy murid bu ne bis bu ne war naa jàng lu néew ak lu mën a doon lu mën a toll ci alxuraan war na koo jàng par bis sëñ wu Mbakke mu baax ma daan nettali ne sëñ bi mas naa xëy bis ne ma ne ñëpp nañ maase ci bis bu set ngeen di jàng ñaari fukki isi bi alxuraan suñ seen daa wax ne booba am na ñoo xam ne sax feruñu woon iji waaye dañoo dem di jéem a jàng ba ca lañ mujj ba mujj di jàng ñaar fukki isi bi yooyu fi ne mag ñu baree bari ak suñ seen boo gisee ñu bari moom la leen digaloon boo ci gisee ci maj moo bu mag bi sax am na sëñ bi wax ne neen farlu ci ñaar fukki yi ku xam ne ñetti fan yu lañ nga wàcc wax na ci njariñ yu baree bari bokk na ci li nga xam ne itam daa daana ko digle te far daa ci farluloo wax murid ñi ñu farlu ci mooy fonk jullit mbooloo ko gis nga sàrt la sax ci wërdul maaxuus seigne eh, Cheikh Ibrahima djoud mashari bamiy tag man yalla nak serigne bi dafa wax ne yatluna daban kitaballahi summa lahum ilal almasajidi tardadun fa tardaadu boo ko seen melo ñom mag ñooñu moy bagante yoonu jàkka ja sëñ Mbàkke bu so gis nga loolu la wax la ya'rifuna siwa gisyaani masjidihim aw darsi alwahim wal xarti jurali boo na seen melo ñom murit yi àndoon ak bi moy mana dem jakar. bokk na ci itam li nga xam ne sëñ bi daana ko digle di ci farloo te defoon ko sartu sax ci mboolem ku jël wirdam te mooy xiyaamul layli guddi gi nga di ko dundal lu mu néew néew ak nu mu toll rek sëñ Tuubaa dara wax ne bu demee ba nit ñi ñëpp tëdd nelaw kenn ku ne la nga bëgg nga nekk ca yow murid bi yow bal qum sarian xiina yahjaul wara li wajhi jalla fa kaabidil kara na nga jug jàkkoonte ak nelaw yi taxaw fi sa kanam boromam loolu day firndeel ne bëgg nga yàlla subhaanahu wa bokk na ci itam li nga xam ne daana ko digle lu bari mooy tudd yàlla danaa wax ne murit bi lekkam gi gën a neex dafa war a doon tudd yàlla bu bari xayru taami lil muridi saaliki dawaamu dikri dil jalaalil maliki loolu la daa wax murit bi lekkam gi gën a neex moo war a doon tudd yàlla bu bari moo tax danaa wax ne tudd yàlla mooy dundub xol mooy dundub ruux waalam bi anna dikra xuutul qalbi loolu wax na ci lu bëree bare bëri nee na itam kii tudd yàlla lu bëri na xam ne mi ci buntu wilaaya teggin itam dinaay wax ne mu ak murit bu doon jëmmu jëmmu ji karkaas bii nga gis muy kees gi nga xam ne moo def ruux gi mas naa jàpp ne mooy sariya ju tegu ci alxuraan ak sunna waaye ruux gi ci biir mooy ay teggin maanaam ak murit mënta ñàkk ay teggin maanaam Sëñ Tuubaa dana wax ne jaamu yàlla yi ñooy may ñooy may aljana waaye teggin mooy maye yàlla mbooleem ñi am yàlla àgg ca yàlla am ca suñu boroom ab cër mooy ñi gën a mën a sàmm teggin seen diggante ak seen borom waaw li annahu bihi ila rahmani yasiru abdul loolu la Sëñ Tuubaa wax na ci lu baree baree bare bokk na ci li nga xam daana ko denk lu baree bare mooy fàbb lu lew fexe ba li ngay jëfandikoo lépp lew danaa wax ni jaamu yàlla yi su fekkee lu mu bari bari bu fekkee ne li ngay jëfandikoo léwut yàlla du ko soxla loo ñaanit yàlla du ko nongu moo tax mu daa wax ne na ngeen farlu ci li ngeen di dugal ci seen gémmiñ na lew te loo amit nga di ci joxe te yàlla tax mooy infaaq loolu bokk na ci ak murit ak sellal itam sellal mooy li ngay def lépp yàlla tax Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana bi ñu ko la dafa wax ne bu ma boo ma laajoon lan la sëñ bi wootee mën naa la ko gàttal ci ixlaas mooy sellal mooy looy wax yàlla tax looy jëf yàlla tax sa lépp yàlla tax jaamu gi ngay jàmm jaamu yàlla yi na ko jaamu ngir ne mooy yàlla waaye bul ko jaamu ngir bëgg àjjana kese wala ngir ragal sa war a kese fa ma maqsuduhum jannaatu adnin wala alxuuru alxisaanu wala alxiyaamu la waaja waxoon bokk na ci li nga xam ne itam ci murit la bokk mooy mooy génne àdduna ci sa xol loolu ci murit la bokk dinaa ñett lu baree bari li cheikh mouhamadan wul ahmadul hasan wax ci téeréen ba mu tudde fathu samil alim wax na sëñ bi dafa wax ne àdduna dama doon topp di ma daat ma di ko daw di ko daw ba mujj ñu ne ma taxawal bi ma taxawee àdduna nee na ñëw wër ma ci wet yépp nee na képp ku bëgg a agsi fi man nag da ngay jéggi àdduna jooju loolu mas na ko dégg ci sëñ Modou Khari Bousso waxtaan yi mu nekk li te sëñ bi nekk te jële ko sëñ Tuubaa wax na ci lu demee nii wax na ne mas na ma wax sëñ bi ne ko damaa bëgg a bokk ci sa waa kër ci sa njaboot mu ne ma waaw loolu de lu am solo la ne ma am na ñoo xam ne de li ma séq ak ñoom fii mooy bokk ak ñoom di dund ci kaw suuf rek waaye séquñu dara ndax man dama jublu sama borom adduna jéem maa yàqal dem maa yàqal di ma jéem a yàqal ba mu ba demee ba xam ne mënumaa yàqalati dara ci la ñëw topp ma moom àdduna am gaa yoo xam ne dañuy ñëw topp adduna soosee nag jàpp ne man lañ topp fekk ci ginnaaw àdduna lañ ne nga xam ne duñ ma jot mukk duñu agsi bi man mukk yàlla yàlla musal ci loolu moo tax boo bëggee àgg ci sëñ bi da ngay jéggi baraasu adduna bii nii xéewal gii wër sëñ waa nga xam ne lu neex a dégg la dinaa ko wax sunu classe gii nga xam ne ngay wax ci sëñ bi lu ne mën nga koo am ci sëñ Tuubaa ndax nit ñi dañu bëgg sëñ bi te booy wax lu ne mën nañ la ko jox ngir jëmmi sëñ Tuubaa waaye booy dee dem sawara ndax bu fekkee loolu rek moo la ci ñor boo dee dem sawara yàlla yàlla musal ci loolu ñi nga xam ne jàng xasidaam yii lu ne mën ko am ci sëñ bi ndax sëñ nit ñi dañoo bëgg sëñ Tuubaa soo santee santam bi sax noonu foo dem lu ne nga ko am ci moom yow sababu yaa war a xam ne alal joojeeg adduna jeeg xoy-xoy yi loolu bokkut ak sëñ da ngay jiggi yooyu doog àgg ci sëñ Tuubaa moo tax dëddu gu adduna yonente bi bimu fi joge dafa wax ne raguluma ci yéen ngeen bokkaale sama ginnaaw walakinni akhsha alaykum ad-dunya an tanafasuha len rek la ragal moy aduna wursi len ngeen xëccoo ko te loolu moo yàq l'islam bi ku ne xam ne lislaam loolu rek moo ko yàq bokk na ci loo xam ne ci murit la bokk it mooy woyof murit day woyof di wàcc boobam bañ yëg dara ci boppam Sëñ Tuubaa dara wax ne wa ruyatul fadli ala ghayrika ya akhi min aqbaxil uyubi fadriya bokk na sikk si gën a rëy ci murit mooy yikk ne yaa gën kenn ci jaam yi sëñ bay jaxat daa wax ne fee jant bay fenke ak fee muy xaloo soxe yi yilif ko ak laxasu yalwaani laa yemale ñoo yem fi ñoom ña ci moom bokk na ci xidma bi ma waxoon mooy loo mën a defal nit nga defal ko ko te yàlla kese tax bañ ci wutu pay wala cant loolu nga tàmbalee ko sëñ bi nga jëbbulu loo mën defal ko ko te yàlla tax te bañ a bëgg sëñ bi fay na ko wala mu gis ko wala déedéet defal rek te yàlla tax njabootu sëñ bi noonu murid yi ànd ak sëñ bi noonu sa mbokki murid yi ci des yépp noonu loo ci mën a defal nit ba ci doomu aadama yi ne ñu ay sax loo ci mën a defal nit ko ko te yàlla sëñ bi digg na ci lu bare bare wax na ne ëllëg ñu doon def xidma kenn du lijjanti seen mbir wax na yu bari itam ci xeeti futuxaat yoo xam ni ci xidma la ko amee bokk na ci fatxul irfaan yi bi nga xam ne moom fatxul ilmi ulum xeet xam-xam yi nga xam ne moom la yàlla jox gaañam yi aataynaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunnaa ilman futuxaat yooyu bari na sëñ bi yoo xam ne wax ne ci xidma la ko amee xidma allamani al alimu taalima al ulum wa qaada lii fi xidmati nabi al ulum wax na yu mel noonu yu bëree baree bëri bokk na ci sëñ bi daa digle lu bari itam mooy fexe ba ñi ngay àndal nga tànn ko di ànd ak ñu baax ñi moytuñu bon yi loolu digle na ci lu bëree bëri dañuy bañ waxtu wi mel na ne xaw naa no kii loolu moo tax rek waaye bokk na ci yooyu nga xam si ñu daana ko digle mooy moytu bàkkaar yu mag yi moytu bàkkaar yu mag yi te fexe ba sëñ bi wax na ne wilaaya bu doon ab néeg ñeenti keño kenn moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko yanu sumtun wa juuxun tawilun baadahu shaharun mooy téye saw làmmiñ ñemeb xiif te ñeme foog guddi ak di beru bañ waxtu ne ngay jaxasoo rek ak nit ñi xam ne itam sa bakkan bi itam li tax mu nooy li tax nga mën a not sa bakkan mooy nga xañ ko bànneex yi mu bëgg yan ko ci ay jaamu yàlla lu ko ëpp doole te dimbali ko ci suñu borom tabaaraka wa taala te bañ a diingat kenn lu waay nekk bul ca jéem a eh, diingat yow li jënd sa bopp rek ak sa sikki bopp sama mbokk mu baax sëñ Xalil Mbakke dafa def ay bayit yoo xam ne yoo xam ne sëriñ seeg yii nii bul ci jéem a diingal sëriñ yow sëriñ boo gis muy ne maanul ci moom rek yow yow ginnaaw taalibe nga maanul ci sëriñ sépp rek te jéem a lijjënd yow sa bopp ku ma ci gis nga aw ca yoonu sëñ ba ma jël la def ni sëñ bi jox la xol bi ku ma gisit nga aw feneen ma def la am mboq taalibe te am na ku ful la loolu gis naa ne ku ko doxee sa taalibe dana ñoŋ insha allahu taala ma jeexal rek ci ne wax ni itam dama wax léegi ne ak taalibe bu doon jëmm jëmm ji mooy sariya ju tegu ci alquran ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa waaye ruux gi mooy mooy ay teggit waaye sekkareb nag mbir mi mooy ak bëgg bëgg Sëñ Tuubaa bëgg Sëñ Tuubaa boobu mooy sekkare ak ak ku la raw rek ci bëgg googu la raw boo fexee ba sa xol nga duy ko ba mu fees ak jëm ak bëgg sëñ Bàmba kenn du la gën a jariñu ci ci yi kenn du la ëpp ëppale te kenn du la jiitu itam mag ñi itam mën naa ne foofu rek lañu raw woon mag ñi foofu rek lañu raw woon gis nga sëñ Tuubaa bi wax meroy taalibe ak murid saalis ak siddu ko fii mahabbati cheikh moom la ci jiital dinaa misaal lu bare bare wax ne Cheikh Mouhamadou Lamine Diom Cheikh Mouhamadou Lamine Gaye jëm mooy mu baax ma dana wax ne Sëñ Tuubaa bu doon lu ñuy jaay maa ngi jégalu ci baat lu ñuy jaay njëg gi mooy bëgg ko Sëñ Tuubaa mënoo ko defal lenn daanaka nun yi ngay kër kër lu ci bari ci nun lay delluwaat bis yi ñuy def ni lekk yeeg nag yeeg yooyu ci bari nun noo koy xewluwaat daanaka Sëñ Tuubaa lay agsi ci moom lu néew lay doon li nga man mooy bëgg ko ci sa xol bëgg bu dëggu ci yow te mag ñi foofu lañ nekkoon sëñ siréloo moom Sanosi dinañ def li ne wax nañ ne keroog ba sëñ bi ñibbisee ba jaar sànn dafa am ca magi dëkk ba ñu ko gàttandu bëgg mu dal ak moom sëñ bi romb leen fa dem laaj sëñ Siré ne anamu ba mu ba mu ko gisee mu ne ko ana dal bi ba mu ko laajee fan la ñuy wàcc sëñ Siré danaa wax ne baat boobu fii ci adduna de gisuma neexit wu yem ak moom hmm. xanaa bu ñu demee àllaaxira ci àjjana ma seer ba xam dana am ba am lu xaw a jege ba neexin woowee waaye nee na baat boobu dara melut ni moom ci moom sëñ bi dal ak moom wàcceeg moom laaj ko fan lañuy ñuy dal am na ci mbokki sëñ bi ñox sëñ Ahmad Jee Mbàkke danañ nat li ci siiraam ni keroog bi ko sëñ bi yem yi fële ca ja ca ca ca gànnaar ba ne ko am nga ngërëmul yàlla ak yonente bi ne ko nga ñëw delluwaat nag Sénégal boobu ña nga ña gànnaar dafa wax dafa yendoo jooy ca ngoon nga mu wax sëñ bi ne ko ngërëm bu yàlla ak yónte bu fekkee dañu maa nar a teqale yow ngërëm yooyu soxla wu ko ndax man nekk ak yow moo ma gën a doo mën a ne loo mën a am ci kaw suuf kon bëgg googu nga xam ne yow Sëñ Tuubaa mooy doon sa yitte moo lay bàyyi foo man a ne googu mooy lii li mooy secret ak murid dinaa wax lu bari bari sëñ dina ko dégg ci man Sëñ Tuubaa bi mu demee ci géej gi mag ñi jëf yi ñu jëf day tegtale bëgg googu yi masalan ko benn sañ ma sañ Balla Coro yu bari duñ ko duñ ko bay xel waaye dañuy wax ne booba dafa dal di tàmbali dañ koo xamal dafa dafa bëggoon a fekki sëñ bi ñu ne ko ngir nga fekk ko faw nga am da ngay jàng tubaab ñu xelal ko ne ko dangay ngay jàng tubaab ngir am këyit wala man a may nga fekk sañ ba mu dal dugg ci ecole bi di jàng tubaab ba am ba am këyit woowee ginnaaw bi ci la sëñ maam si ànd mii dem moom mujj ta dem waaye yitte jooju nga xam ne yow xam nga ne Sëñ Tuubaa moom nga bëgg a fekk ñu la boo jàngee tubaab ak tubaab ni ci mag ñi meloon mu dem jàngi tubaab ba am këyit boobee ak yeneen ak yeneen yoo xam ni buñ ko toppee day gën a gudd bëgg Sëñ Tuubaa mooy lépp am naa mbokk moo xam danaa koy ner lu bare bare moom itam bokk ci wax yi ma gën a kii dafa wax ne Cheikh Abdou Samad moom Cheikh Mouhamad Hamad day wax ne moom Sëñ Tuubaa xam na ne ak mbaaxam àgg na ci yomal xëyam buñ fa àggee suñ demee man naa wax suñu borom ne ko mboolem lu waaye def ci safaan nag ma ko sëf te ñëpp dem àjjana man ma dem sawara loolu suñ tubaab mbaaxam moom ku ne xam ne àgg na ko na ko waaye dara wax ne bu ñu fa àggee moom sawara soosee sëñ tubaab ne moo may dàqal aljana ndax aljana ju sëñ tubaab nekkul sawaraa ko dàq jëm mi bëgg boobu nga xam ne nag day téye sa xol ba sëñ tubaab gënal la nga xam ne fu mu mën a ne danga maanaam fu sëñ tubaab nekkul yow sawara lay doon ci yow googu yi bëgg mooy doo mooy sekkaram ak murit yàlla yàlla defal nu ci tawfeex nu bañ ci yem kenn am ci ngën ji ngën ji tawfeex bëggoon na maa wëy ci wane ne nekk murit dafa bari ay mbir ay xéwal yu baree bari yu ci ne xuma waxtaan naa ko ma mayam déet nekk murit dafa bari ay xéwal yu ci ne xam ngeen ne dugg ci tariixa rek tariixa bu man mën di doon boo ci duggee dafa bari yu la cay fekk la ca jiitu mooy ëllëg yowmal xiyaam nit ñi niñ leen suñu borom di àttee am na ñoo xam ne ni lijjanti ñoom kese lijjanti seen mbir waaye am na ñoo xam ne da leen di lijjanti par ci ay mbooloo nad'u kulla unaasin bi imaamihim naxsuru lmuttaqiina ila arrahmani wafda wasiqa alladina taqaw rabbahum ila aljannati zumaran nga xam ne ay mbooloo la ñuy bon lijjantee doo leen te seen kilifa lañ leen di lijjandoo ñooñee nag mu tasawuf yi dañuy yàgg wax ne boo ñëwee bokk ci tarixa rek loolu da nga koy daal di am waaye da am ëllëg xéwalu ñu lijjanti la yaag mbooloo mi nga xam ne moom la sa kilifa borom tarixa bi jiite te loolu tarixa yëpp la te loolu lu wér la nekk noonu dañuy wax ne ngir nga bokk ci muqarrabuun yi lii waxi tasawuf la nag moom dañuy wax ne ngir nga génn ci as asxaabul yamin dem ci al muqarrabuuna loolu ñaaral la koy may benn nga am euh, isnul xaas nga xam ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy jox ku la jox ñu talxiin la zikr wala yu demee noonu boo xam ne ci rasulullah sallam la jóge ci isnu xaas loolu mën na laa génne ci asxaabul yamin dugale ci muqarraboon yi wala ñu teg la natt boo xam ne day tiis lool nga muñ ko te yàlla tax loolu mën na la caa génn te boo seetee kon borom tarixa yépp dañuy dal di tuxoo ci asxaabul yamin dugg ci almuqarrabuna ki nga xam ne dafa nekk ci tarixa itam tarixa mën a doon itam day nekk ala qadri cheikh mooy dafa aju ci sëriñ bi sëriñ bi fu mu jéggee tànkam rek mu teg fa tànkam maanaam taalibe bu ne darajee sëriñam lay lay lu sëriñam gën a kawe taalibe gën a kawe yenn taalibe loolu mas na ko déggee ci xadis bi sayidna Abdullah ibn Mas'ud وحنا بين وعينا فنيوتيون دبنكم كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم ما يواجه خلنا في بقى أي نت من تعقد تنيوم تسير يف نيوتيون دبنكم المرء مع من أحب كأنه كنا نيجي بقى رجلين دبوانا نيجي بقى رجلين دبوانا نيوي أن لولو حدش بري بري ما نقول تكتله لولا كلا برو خامي دعنة كيغا خامنة دفع جبلة سرير تاريخ أبو مالدون موكسين بوبلون تكاليكو dañ leen di lëkkale ëllëg fu mu dekkee rek ci ginnaaw sëñ booba lay lay lay ne insha allahu taala te boo jëbbuloo itam doonte suriwoo ci tarixa bi itam yëggoo maanaam yëggoo ci yoon wi itam daal di faatu faw nga àgg wa man yaxruj min baytihi muhaajiran إلى الله ورسوله سمو يدرك الموت فقد وقع أجره على الله أك يو باري باري وخم ني دا نكوي واخ تي تاريخ بو ني واي سونو تاريخ بي ني موي شيخ عبد بامر رضي الله كي تي بوك دا فا ام يرين جاغلا يو باري يو خم ني نيكول تي يين تاريخ اي واخ دغال لول موي لي وير لا تي جيتو موي نون دانيو نيك اك شيخ حي كفاني الباقي الممات السرمدا شيخ حي بو خم ني سيرن بو خم ني دي تبو mbooleem talibeem yeeg ñi ci des ñëpp na mu ko daa def bi bu muy dundee loolu benn la ci jagle yoon yi loolu lu jafe la tarixa boo xam ni cheikh borom tarixa bi cheikh xaaj yi la boo xam ni mi ngi tëbb nit ñi di leen jëflanteeg ñoom nam daa jëflanteeg ba ba bañ ba ba bañ koy gis ci kaw suuf ñaareel bi itam bokk na jagle yooyu mooy sunu sëriñ yàlla ci boobu moo ko soppal boobu ndax lu ne gis nañ mu jox ko jox na ko alquran jox na ko sax. اللوح المحفوظ هدية اللوح الحفيظ والقلم قلم كن لوريتي توفيق لا موي عندك سيرن بو خامني يالا تي بو موكو جيل ديف كو نون فوكي كو نون امنا يو خامني صاح تي يمكو ماي يو خامني نون نيمي سيام كين تي نون نيمو كو واخ ما ما ما جامع li muy mudal ma jami te moy tarikha yep ak serigne chep seni jagle moy dajale ko ci mom nga xamne li qutta ma faqa bihi al ljeylaani alayhi ridwanu alladhi a'lan ilayya qutta ma bihi abul xasan faqa tamamta li ma bi tijani faqa nga xamne tarikha yep seni jagle ak seni mbir suñu borom daa jagle yooyu def jox ko ko mom mu nek ci tarixam bi nga xamne bo boo nekkee ci tarixa bi mel nga nek ki nekk ci ci dess yep te du yak ci li nga ne yow loolu tawfiq na ju re re re re nu daa mel sax lin len ni dess nañ ko xam deug rek seigne Tuubaa yalla dafa def moy teub manam dañuy wax ne leeru yalla li ci yalla baxé nit ñi lepp ci ruuxu yonte bi day jaar way seigne Tuubaa mu wax na ne mbooleem aqtaab yi seen tarqiyat yi ñi am suñu borom ci mom lay jaar wa bi turaqi xisbaka alxufaada wa bi turaqi al ulama am fu ko waxe bi mu moom euh, ajaabani xayru baaqin fii xataaba kulli wa raqa bi mali qaada aqtaaba ak yeneen yeneen nga xam ne kon day war na ne imdaadaat nuuraaniye yi nga xam ne moom la suñu borom bi tëbb yi man nañ ne lépp ci ruuxam gu sell googu lay jaar ginnaaw ba mu bawoo ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag mooy centralu courant bi nga nga nga dend ak moom yow. Hmm. courant bi nga xam ne mooy jox réew mépp di jox fépp yow nga dëkk ak bi man a da nga am jokkoo courant bi direct loolu moom dara gënu ko rëy ci tawfeex te mooy tarixa bi mujj nga xam ne tey sanadam moo gën a gàtt ci sanad yi sëñ maam moo day mën a toog fii ne jëlee naa ci sëñ Muntaqa mu jëlee ci sëñ Mouhamadul Bachir mu jëlee ci si Ahmadu Bamba mu jëlee ci Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñeenti nit tarixa beneen boo dem nag xalifa ba ci moom bu la limee rek càllalem faw gën jaaneew dana mat fukk ak juróom jëm ñaar fukk hmm. mooy sanad bi gën a gàtt te lu mu gën a gàtt ci la leer gi gën a bari loolu amul ci kaw suuf sëñ yàlla yàlla tawféex yi defal nu tawféex yi nu xam ko beneen mbir nag mooy ki ànd ak sëriñ bi loolu moom daa koy wax ni te na tegtal te mooy li wér xam nga li wér it ñu koy wax leneen wàññiwul dara mooy ki ànd ak moom jaamu yàlla yi muy def dañ koy ful lu ëpp mu wuuteeg tey ki ànd ak moom ibaadaatuna faaqat ibaadaati gayrina bu ànd ak moom jaamu yàlla gi nga def dafa wuuteeg tey bu àndoon ak moom jaamu yàlla yi ngay def yàlla yàlla defal tawfeex ànd ak moom ànd gu wér te aju ci moom te dara bañoo teqaleeg moom bi jeexi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam